Adama Diop bokk ci parti Pastef gis nga li nga xamante ne am na jëm ci mbirum rejet bi nga xam ne def nañ ko ci candidature kii di Ousmane Sonko fële sa conseil constitutionnel ñu rejeté candidature am wax ne euh, mbirum Mame moo tax mënut a bokk ci élection yi ak tamit euh, li nga xam ne jot nañ ko gëstu tamit. que ne fii ba juróomi at ki nga xam ne muy euh, kii di Ousmane Sonko du mun a bokk si élection gis nañu tamit euh, coalition bi nga xam ne taxawoon nañ ko woon muy euh, coalition Sonko bi muy waa Lakos tamit ña fa nekk kii di abi si jàll na Cheikh Tidiane Dieye ak ki nga xam ne ñëpp bàyyi woon nañ ko xel muy Bassirou Diomaye Faye mu daal di jàll moom mi nga xam ne mi ngi nekk si ginnaaw ki nga xam ne muy Ousmane Sonko ban jàngat nga si am si li nga xam ne muy liste conseil constitutionnel bi nga xam ne publier nañ ko. Euh, voilà damay nuyoo euh, ba pare di nuyu askan bi di nuyu mboolem patriote euh, di nuyu surtout Touba gi ma bokk ak Pastef bu Touba yëpp di leen ziar di ziar mboolem patriote di jox wàccuwaay bi Seydina Ousmane Sonko mu tegal ma ko ci loxo yi Bassirou Diomaye Faye di wax ne man kontante laa àndal ak mbégte ndax bokkuma ak nit ñi xañ na benn version bi. muy damay jàpp ne Ousmane Sonko dipp bi ma dalee ànd ak moom confiance laa am ci moom euh, am ci moom tamit gëm-gëm boo xam ne dama ko jiital ba pare woon wóolu ko xam ne du sacrifier projet bi moo tax bi mu demee ba benn moment mu xam ne ñi mu jàmmaar lool capable nañ lu ne euh, te ñoom tamit pare nañ pour Ousmane Sonko bokk ci élection yi ñoom it euh, dee moo leen ko gënal bi ñu gàllankooree Ousmane Sonko Ousmane Sonko def na lu tout muy projet bi sowe na ko te loolu moo ëpp solo muy sowe gi nga xam ne sowe na ko projet bi bu ko neexoon tamit du tànn kenn day sacrifier ñëpp sacrifier boppam waaye heureusement muy tànnal nañu leader bi nga xamante ne ku ne xam ne ne Bassirou Diomaye fay ak Ousmane sonk benn la samedi ak dimanche la bés doxul seen diggante bi ma di ko rafetlu nag euh, di wax ne man damay focus euh, ci projet bi nga xamante ne euh, le 25 février ñëpp moom la ñuy xaar te ñëpp moom la ñuy déglu instant bi ma jàpp na nag bu ñu jiitalee Ousmane sonk ne ko yow la ba pare bu Ousmane ñëwee tànnal ñu nit ñun amatuñ lu ñuy critiquer amatuñ leen loo xam ne dañ koy jeextu dañoo war a jëm ci yoon bi nga xamante dañuy waaj ay élection te un mois moo ci des mhm. ñu jéem a wàcc ci terrain bi gën a waxtaan ak askan bi def porte à porte gën a yenn ñu jële ji seen carte d'identité yi nga xamante ne le 25 février lool kese mooy arme bi nga xamante ne moom lañ mën a xeexe pour daaneel régime bi fi mhm. nekk bon Adama ràññee nañ la si réseaux sociaux yi particulièrement bi ñu ngi lay gis yaa ngi fay def liggéey bu solo lool di euh, ban jàngat nga am si détracteurs yi nga xam ne ñi ngi taxaw di wax si kàddu yu ñaaw kii di Bassirou Diomaye Faye di wax ne maanaam waru woon jàll Ousmane moo war a jàll ak lii ay dillaak ay wax yi ñaaw ñu koy wax di ko teg si ndodd ki nga xam ne muy euh, ki nga xam ne muy Bassirou Diomaye ban jàngat nga si am. voilà bokkuma ñoom na gis-gis tànk patriote euh, ak taxawaay bi nga xam ne moom laa war a am euh, nekk ci réseau yi posé fa sama bopp ba askan bépp xàmmee ma li nekk sama rôle mooy Ousmane Sonko mi ma doon topp ba ñëpp bëgg ma tey li mu joxoñ rek loolu laa war a dem pour wax ci ak askan bi moo tax ñenn ñi bu ñu critiqué ne Bassirou Diomaye Faye warul nekk candidat Ousmane Sonko dañ koo wor man gawma loolu ndax Ousmane dafa taxawoon ne maanaam projet bi du nit ki maanaam projet bi dañ koo war a sowe mooy képp koo xamante ne dem nga ba mënatoo doxal projet bi ñu xool keneen ki mën a sowe projet bi pour ñu sowe projet bi te projet bi li ci laxasu dafa bëri ndax ñaata détenu politique ñi ngi ci biir kaso bi pour Ousmane Sonko mii pour ñu mën ko faa jële tamit te sénégalais yi bëgg naa ñu xam leen mooy Macky Sall gàllankoorul comme Ousmane Sonko euh, le 25 février muy 2024 bi du nekk candidat kese kon day neex maanaam gàllankoor bi fu mu njëkk a amee mooy Euh, cinq ans yoo xamante ne Ousmane Sonko dina ko toog ci réewum Sénégal te dootul nekk candidat loolu nag pour li ko mën a dindi pour ñu mën koo xeex muy fi mu ñu jox nañu góorgóorlu euh, wàcc ci terrain bi campagne campagne yu jaar yoon yoo xam ne dañuy kenn ku nekk day xañ sa bopp jox askan bi bokk ndey bokk bàyyi teg ñiiroo bi ak ŋaayoo bi fële focus ci li ñu Ousmane Sonko tegal mooy tax Ousmane Sonko fee mu nekk mu mën faa génn hmm. mooy tax détenu politique yi nga xam ne seen yaay ñi ngi souffrir ñu mën génn loolu mooy tax ëllëg parti Pastef jot seen récépissé bi nga xamante ne dinañ leen ko mën a delloo delloowaat jootaat euh, seen àq ak seen yelleef parti bi pour ñu mën a liggéey euh, Sénégal euh, pour tamit ñu mën a liggéey li nga xamante ne ndaw ñëpp moom la ñu yaakaar muy projet bi loolu nag du ay caaxaan ba tax na tam kon li ñu suñu wareef mooy bi Ousmane waxee rek ñun amuñu lenn lu ñuy wax xel ñaar ndax ku gis Ousmane ni mu ñu tànnale Bassirou Diomaye Faye ci parrainage yi bi ñu ko gàllankooree ne ko ñu la jox say fiches de parrainage euh, bi mu ñu ne joxoñ Bassirou Diomaye fay dem ngeen parrainel ko kon ni ñu àndandoo woon bokk ndey bokk baay euh, daal di dem parrainel Bassirou Diomaye Faye wàcc ci terrain bi ba ñëpp xam ne waa Pastef parrainage nañ kon tey bi Bassirou Diomaye fay jàllee kon li nekkoon suñu wareef muy sax waruñu critiquer ñeen ñi waaye nag damay jàpp ne ñiy critiquer Pastef ñoru leen. mais ñiy nekk ci réseaux sociaux yi di critiquer kii di Bassirou Diomaye fay euh, di wax ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale. waaw loolu mooy seen objectif loolu mooy Pastef ñoru leen xam nga Pastef dafa nekk parti boo xam ne ñii dañoo ñëw pour wutu tur. ëllëg ñu jaay seen bopp ñii dañoo ñëw ngir intérêt seen intérêt personnel ñii dañoo ñëw pour wut si ay vie pour internet ñii dañoo ñëw yàlla suñu borom rek tax ñu jàpp Ousmane Sonko te yàlla suñu borom rek tax parti bi ñor leen ñooñu nag instant bi lañ leen di ràññale liy seen wareef mooy ci internet bi ku mel ne man ak ñeneen ñu mel ne man muy taxawaay bi ñuy sàkku ci ñoom muy ñu taxaw dëggal seen bopp poñewaat réseau yi pour xamal ne Bassirou Diomaye fay mooy Ousmane pour daal di jël image su Bassirou Diomaye jaay ko population bi nga xamante ne xamuñu woon lan moo xew ak ñi nga xam ne réer nañ ñu delloosiwaat nañ ne leen Bassirou ak Ousmane benn la ñun li ñu doon garder mooy projet bi incha allah Euh, dinañ ko sowe ba le 25 février régime bii fi nekk ak ñi nga xamante ne réew mi ñoru leen pour ñu daaneel nguur gi fi nekk loolu bennoo bi lay laaj bennoo bi nag mooy dootuñu jeex dootuñu xool ndax Ousmane bu ko neexoon mu defoon ne Khalifa sàll wala Karim Wade euh, ndax ku gis Ablaye Wade xam ne moom euh, doomam rek la teg ci projet bi au lieu que mu jël keneen xam ne bu Karim Wade jàllul pour ñu mën a sowe seen projet dañu jël ne Euh, mooy parti démocratique Sénégal. voilà mhm. mooy dañu jàpp ne maanaam xale kii benn nit rek moo mën a porter procès bi léegi mhm. Ousmane Sonko jàngalaat na euh, politique bu bees sax te ñi fi nekkoon usman Sonko xamalaat na leen politique du noonu maanaam politique du nit ki. muy projet la ñu jaay te projet boobu pour ñu gañee ko nag mooy bu fekkee ne nit ki dem nañ ba ki ñu teg état bi fi nekk gàllankoor ko ak ku mu mën a doon mhm. Ousmane Sonko delloosi na politiciens yépp ne leen bu boobaa xool leen kan ngeen mën a euh, tànn teg ko pour ñu sowee procès bi kon Ousmane jàngalaat na nit ñi nan mooy politique te jàpp naa bu ñu dee laaj ku dàq politique ci réew mi Ousmane Sonko laa koy jox mhm. ndax li mu doon rêvé muy gagné na ko muy def na ci xeli ndaw ñi mooy réew mi man ngeen fee toog tekki te réew mi am na ay sources yu fi nekk te réew mi bu fekkee joxante ngeen man ak loxo dinaa sowee projet bi nga xam ne porté woon naa ko ay nit dee ci ñàkk seen bakkan ay nit tëdd ci kaso le 25 février mooy ku bokk Pastef mooy gagné procès bi kon loolu ndam la ci man man fierté laa ko def. lii yëpp ngir gàllankoor Ousmane Sonko. loolu laay foofu laay deseek ak yow Adama. Mhm. ndaxte gis nañ kii di président Macky Sall euh, mbir mi nga xam ne dox na si mbir Ousmane Sonko 2021 ba léegi yow fekkee nga ko dara ump la si. ñu dem ba dernier moment ñu gis ne euh, tey l'affaire Mame Mbaye tax moo tax ñu bloqué ko l'affaire Sweet Beauté mi ngi noonu naax saay ay junni doomu aadama lor la si. ay doomu aadama tamit faatu si ñi ñu teg leen si kaso ba bi nga xamante ne tamit tey gis nañ l'affaire Mame Mbaye moo tax kii di Ousmane Sonko bokkul si élection yi ban jàngat nga si am. loolu moo tax ma ne la ñu wax diggante bi ak. li nga mhm. xam ne muy Macky ak ki nga xam ne muy Ousmane Sonko. Mhm. loolu moo tax sànq wax naa la ko ma ne ñun wax wax ñun waxkat yi ñu ngi doog a am wax lu ñu war a wax. Mhm. muy ku ne xam na ne Ousmane Sonko Macky Sall fi mu bëggoon jaar ak moom bu fa eggoon du egg si fii ndax ku ne xam na ne jaar naa moom ci dossier Adji Sarr yàlla suñu borom antuwul mu ñëw jaar ak moom euh, ci sàcc téléphone loolu antuwul euh, dossier euh, Mame Mbaye Niang ci lañ jël teg ko pour gàllankoor ci Ousmane sonk ba mënul nekk candidat te loolu yëpp ay wax la loolu nag dafa jot ñu leeral Sénégal yi ne leen. Mhm. du dossier Adji Sarr moo tax Ousmane Sonko nekkul candidat du portable bi mu jëloon moo tax nekkul candidat maanaam digganteem ak Mame Mbaye moo waral ñu gàllankoor loolu noonu. portable bi sax moo tax ñu téye ko fële sa. voilà moo tax ñu téye ko waaye taxul téewul mu doon candidat. maanaam projet Mame Mbaye moo tax ñu ne du munul nekk candidat loolu nag mooy usman Sonko jaaxal na leen te Macky Sall ragalul mbooleem ku fi nekk mel ni Ousmane Sonko sel la yaakaar moom la ragal euh, moo tax nag mu jàpp ne bu tëjee Ousmane Sonko ci kaso bi procès passif dafay naax saay dafay niil te xamul boobu ne Ousmane Sonko euh, maanaam depuis li ñu ko barrière cité kër góor gi muy tëdd na mu waxtaan ak xelam xalaat ñi mu jàmmaarloo li ñu capable waaye moom it rayante na ba fexe. ñoom lu ñu lal muy lalli na loolu moo waral mu soowee procès bi tey te Macky Sall li mu def nii dafa dafa yàq defarul te man jàpp naa ne Ousmane sonk moo gënoon sedd ci moom Macky Sall Ousmane Sonko bu tegoon bant moom mu teg mu gën a yaakaar bant bi Ousmane Sonko teg mooy jël réew mi te bu boobaa conséquences yi day gën a metti ci moom te moo tane ndax Ousmane ñëwutoon pour fayantoo moom dafa ñëwoon pour defar réew mi kiy defar nag du fayantoo donte mënul ñàkk yenn yenn yi nga xamante ne alali réew mi paacoo woon nañ ko séddoo woon nañ ko ak suuf si nga xam ne ñi ngi ko doon paacoo mu ñëw mu neeku ku ne li nga jëloon di nga ko delloo si waaye du yenn yi nga xam ne day ñëw di leen ko teg ci yu ñàkk fayda ndax moom defar réew mi moo ko ñor pour nag loolu lépp ñu mën ko defaraat delloo si waat réew mi pour Sénégal jotaat li nga xamante ne mooy àq ak yelleef dañuy jël système bii fi nekk ñu won Sénégalais yi ne leen nii ku leen wateel mooy wateel Macky Sall entre système bi ñu ràññale leen ni leen ñii ñoo pare pour defar réew mi pour le 25 février ñu tabaxaat yeneen Sénégal bu bees tàq waaye li nga xam ne perton nañ ko muy àq ak yelleef ak sis bi nga xamante ne ñàkkoon nañ ko ñu mën koo delloo si waat ci Sénégal kon loolu le 25 février ne kenn ku ne xam ne ne sa carte d'identité mooy sa baat te sa baat boobu war nga koo jox Ousmane Sonko su fekkee war ngaa fay naat ba le 25 février boobu laay des yow ndax gis nañ liste officielle li nga xam ne muy euh, candidat yi génn nañ am ñu féete ki nga xam ne muy Macky Sall nekkoon ci moom gouverner ak moom ay ati at xëy génn doon candidat jàll parrainage mooy ñi nga xamante ne nekkoon nañ ci nguuram ban jàngat nga ci am ci élection yi à part Diomaye Faye ni mu génn mhm. ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci coalition Lakos bi muy mhm. Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye génn mhm. noo gisee opposition bi ak tamit ñi nga xam ne dañoo ne ànduñu ak Macky ñu doon candidat jàll te nekkoon si moom. waaw loolu li koy waral mooy man damay jàpp ne Macky deuxième tour lay lay créer daal ndax na ne premier tour bi moom mënu ko gagné léegi nag bu xamee ne premier tour bi mënu ko gagné force tamit mu jéem a tegaat beneen rôle boo xamante ne jàpp na ba léegi moom daanoogul te ba mu nee Ousmane Sonko jàlloo waaye tànn naa ko bokk biir Pastef mu jàll muy Bassirou Diomaye Faye eh, jàll na booba la yàqu leen. Hmm. ñeneen ñi ci des nag bu fekkee dañu am seenug féewaloo nañu am seenug féewalee ci côté gi. waaye man jàpp naa ne ñooñu ñëpp ay Pape Djibril Fall ay Bab Anta Babacar Ngom xam nga ñooñu su fekkee ne jàllale nañ leen ay parrainage xëy suba ne Ousmane Sonko yow mi nga xam ne ci réew mi nga dëkk dëkk ci réew mi bokk ci réew mi te lépp loo xamante ne tax na nga nekk candidat matal nga loolu muy neuf pièces yi ay Mame Boye Diao Mame Boye Diao ay Ali euh, Boun Abdallah Dione voilà kon man damay jàpp ne ay reetaan daf may jàpp ndax dama naan Macky Sall amul ay conseil te ki ko dugal ci lii nag da koo ay ndëgg sërëx yoo xam ne le 25 février la Macky Sall di comprendre ne population bu décidé du ay caaxaan te population bi ñoo décidé ne système bi fi nekk doyal nañ ci ñoom te pareetul ñu jor yor réew mi man nag li may gën di ñaax mooy. Mhm. le 25 février lu taq ci Macky Sall wala lu ko jege wala image bu mus a toog ak Macky Sall jàpp naa ne waratul yor réew mi. Mhm. bu ñu bëggee li fi nekk jóge fi régime bi fi nekk ñu daaneel ko muy nañu fexe le tout. muy lii di parti Pastef jël réew mi pour ñu tabax Sénégal bu bees ndax ñoom ñoo gën ci ñun te ñii dañuy yàq réew mi baaxuñu ci réew mi. jërëjëf Adama mbégte la woon ñu dalal la si ASID TV daa mel ni daa am ay produits yooyu jaay wan ko bokk internet yi. voilà produit yoo xamante ne. Eh, yëkkati ko caméra bi. voilà produit yoo xam ne dama koy jaay. Eh, ndax eh, dama naan réew mi nekk fi eh, tekki ci réew mi baax na lool te Ousmane Sonko nee na li ñore ci réew mi ñu lekkaat ko ci réew mi consommer local moo tax nag ma daal di defaat samay yeneen côté yoo xam ne bi côté bii doxul lekk damay ñëw ndaw laa ma fëggaat beneen côté may def ay koko junjeer ay jus yu naturel ak ay yeneen ak yeneen yoo xam ne képp ku ci bëgg rek nag ma contacter yéen waa Pastef yëpp ngeen ñëw daal di ci jàpp dooleel ma numéro bi 77 la 288 37 21 ak ku ma ci woo daal di jot patriote bu mag bi ñu daal di incha allah. jërë ngeen jëf kon mbokk internet yi ba beneen yoon ak suñu beneen gan. si ASID TV